waa aasubillahi min asheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki jullit ñëpp kenn kuñ turam santam ñoo leen di balu bu baax leen balu di ñaan si mu taxaa mbàkke suñu borom yàgg fi loolu ti wéral ko waaw ah, tey nag le 7 octobre fii ci Touba Touba Ndindipp moo ci kër sëñ Modou Mamoune Mbacke ibnu sëñ Fallou Mbacke ñu teewoon fi ñun taalibe yi nekk bitim réew rawatina waa Côte d'Ivoire euh, ñu teewoon fi tey doon ko ziar ni mu koy defee at mu jot mu ko daan amal at mu jot daan ci invité diaspora bi yëpp ren nag waa Côte d'Ivoire euh, ñu yokku ci kon Mbacke ñu ngi lay nuyu di la ziar di lay indi nuyoo sëñ Magoumba Thiam mi représentant sëñ Mountakha fële ca Touba Côte d'Ivoire ak ak ak euh, taalibe yi mu àndal yëpp. ñoo ngi lay nuyu te di la ziar di la ñaanal jàmm di la ñaanal sutura di la ñaanal xéwal yàtte barkeel di ñaanal yàgg fi loolu téwér di la xamal mbégteem ci invitation bi nga ñu invité ñu ànd ci ak sëñ Cheikh Gueye Mangone doomu Baye ak sëñ Cheikhouna Gueye moom it di suñ jëwriñ nekk tuuba Njaareem ak sëñ sëñ Xaadim Seen ak waa jëwriñ yëpp jëwriñu Buwaake jëwriñu Korogo ngi fi ak jëwriñu Yamoussoukro ñu defoon délégation ñu siyaar si la di ci am mbégte bu baax nag wax dëgg yàlla di am mbégte bu baax a baax a baax di la indil kàddu yu taalibe yëpp daal ak seen i ziar kàddu cant ak kàddu yu ngërëm muy xam naa wax ji moom <laughs> dañu mën a mën gudd ndax dañ koo mënewut ah dana jox rek nga sànni ci ay kàddu ñaanal ñu bis bisimilah. <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xam xam na incha allah kàddu kàddu yu gàtt lay doon rek gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu salaam sant sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu yàlla fayal na ko te yàlla tas ñu ci ay barkeem sant Cheikh Mahamadul Fadal bi ma booleeg sëriñ Tuubaa ñaan yàlla fayal ko te yàlla tas ñu ci ay barkeem te ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaqa xalif général de Mouride mu yàgg fi loolu te wér ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp mu àggale ko ci sago te nu fekkee ko te ànd ko ak moom ñoo leen ko ñaanal Cheikh Abul Baraka mi xalifa Sëriñ Ahmadu Fadal mu yàgg fi loolu te wér moom njabootu Sëriñ Fadalu gépp ak njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ak ñun taalibe yëpp rek waaw di sant bu baax baax ci jotaay bi nag jotaay bi yàlla dafa dogal dañ ko daan def at yu bëree bëri ñu ngi ko tàmbali woon ci daara jee ci gaar bu ndaw daan def lenn ci mbokk yi waa diaspora bi buñ màggalee ba noppi ñu jàpp benn bis fa def ko lu simple rek defuñuy carte wuñ ko yëgle wuñ ko eh, defuñu invitation dañ ko yëgal ay benn benn rek ñu ñëw ci yàlla dogal nag muy yokk di yokk ba foofu xaw a xat gannaaw bi nag ñu lañ ko indi fii lu eh, jóge fu bëri ndax ñu bëri ñu jóge fu bëri ngi fi ñu jóge États-Unis ñu jóge Espagne ñu jóge Italie ñu jóge Mali ñu jóge ren mu yokk ci nag ñu jóge Côte d'Ivoire ñu jóge Côte d'Ivoire goo xam ne day ak booleeg sëriñ bi nga xam ne yeneen dëkk yëpp dañ fa daan dem ci coobaree bopp wala ñu daan fa dem ci ndigalu suñu mag ju baax ci Cheikh ba yàlla dogal mu ñibbi àjjana ñu continuer ba muy dox ba fii ba bu ñëwee màggal amul bis amul bis bu fixe itam dañ ko jëkk jàpp ko benn bisu àjjuma rek ndax li ëpp ci mbokk yi dañuy dañuy dañuy julli si àjjuma ci jumaa ji ñu leen comme tool tool ya ñu daan def balaa gàmmoo rek ñu jàpp benn àjjuma buñ jullee ba nepp ñu agsi fi def yi fi ndaw ko ndaa xéewal tuuti naan as ndox rek daal di daal di ñaan waaw yàlla dogal nag def ko ay ati at noonu la di ko di ci wane cant gu ñu leen sant ak ak ci coono bu ngeen daj ci jabatu sëñ bi Eh, te buñ koy def nag ci njabootu sëriñ bépp rawatina ci mooy jëwriñ daay mooy jëwriñ diaspora bi kon bu fi sëriñ Cheikh ba toogee mel na sëriñ Mamor toog na fi te moom lañ koy defal waaw bu ko defee nag da day kilifa da boo xam doo dem ci moom naan ko ñëwal te fekk yëpp loolu ëpp loolu day ëpp ndax yi la mën nañ koy yemale suñ cadre dong bu ko defee sëriñ bu coppam am lu ñu sa boole woon ak yéen kon Côte waar naka ci dana am ay benn benn yu fa jóge di ko fekkee waaye nag ni ni ngeen leen ni ma booleeg yéen ren nag lu ci yokkuwaat la waaw bu ko loolu beneen aspect la ci mbir mi ren waaw bu ko defee ba tey la ndax sëñ Muntaxa mooy kilifa murit yëpp murit nekk sañ naa woo liggéey loo la fam lay liggéeyloo ak lam lay liggéeyloo ak ak nam lay liggéeyloo kon bu ñu yàlla boolee mu wooñu boole ñoo gi yéen bu li ñëwee ngeen teew ci kon day joxaat li yëf yi beneen xor beneen xorom lu ci dolli ko waaw kon ñu ci sant bu baax a baax di ñaan rek lañ fa sémbu ñu sémbu ko fa te ngeen bëgg fa taxawal te te te murid yëpp war war cee jàpp ñu taxawal ko ba mu dem ba àgg ci kanamam tam ba bañ teg ca yeneen ak jàmm ndax neen ko xamee sëñ bi dafa bëgg dafa bëgg def daara ju mag sëriñ Cheikh Guémé Ngor ni moo joxe suuf sa 5 hectares demi la fa joxe ci Yamoussoukro këyit yàgg lépp jàpp ni na jëbal ko sëriñ bi sëriñ bi danañ ko def daara mu bokk ci daaray Touba ji këyit yàgg lépp noppi na ci moom fi mu toll sëriñ bi lañ ci déglu gannaaw yoon nag yoonu ndigal la duñ ci wax duñ ci def mbaa lenn lu ndigalu sëriñ bi dem nañ fa gis nañ ko ànd nañu ñoom ñi dem fa def nañ fa ay photo jël yëpp indi nañ bi ko jàll lu ñu fay def ñu door ko faa nañu toog rek ñun moom dañ koy def yëfi ñu ne màggal ñu ne iyoo dañu nañu ñu ne nañ ko bàyyee ñu ne iyoo nañ fa def lu mu wax rek ñu ne nañ ko ci sant baax ndax waajuroon dafa nekkoon ci jëwriñ Côte d'Ivoire yu yàgg yi alaaji ma ngoone Géey ñàkk yow da nga ko xam sax ñu koy Cheikh Géey ma ngoone mu suñu mag ju baax ja waaw kay mu kon bu ko yàlla dogalee mu am boobu boobu xalaat bu rafet am fa suuf sa loolu yàmm su ko capital ba muy ay millions mu mën ko soppi ay millions mu jëf ko addi Sëñ Tuubaa loolu loolu lool loolu rëy na lool ndax ñu ndaw ko ndaay bu bari bu doon ñoom kenn du ko yëg dañuy dem ci notaire daal koy daal koy daal koy soppi xaalis bëree loolu liggéey bu rëy la ñëw jébbal ko yëpp boole ci nañ toog déglu ndigal loolu da ca yokkuwaat muy lu bees soññee muy ak cant itam nag ndax sëñ bi na ko def loo keneen ko neexoon li muy wax ne sëñ Muntaxa lu mu lay liggéeyloo da la bëgg dimbale waaye mënoon na ko liggéeyloo ba mu set doo ko yëg ndax waxuma la murid yi mu jilif ak li ëpp ci Sénégal ñu ko nangul waaye wanagam woowee rek bu geesoo lu mu bëgg mën na loo daf la bëgg dimbale kon loolu lañ koy sant ko gërëm te loolu lépp nag li gën a waral mooy li ma koy wax ne ko boo gisee waa kër sëñ Fallou ak yoon bi sax waaye rawatina kër sëñ Fallou te te wolof day wax ne maa ci raw gàttum xel la waaye moom ku jox ko sax moom bu la neexee ne maa raw damay ndax ni mel ci yoon yi ñëpp xam nañ ko ak bëggam sëñ Touba bëggam murid yi bëggam islam bëggam diine bëggam xam-xam waaye ni mu taxawee woon Cheikh Amadou Lamine Bara loolu moom dañoo war di ko incité di ko fàttali da doon taxawaay bu rafet rafet boo xam ne duñ ko fàtte mukk ndax loolu da doon transition bu garaaw jamono ñu toogee ba doomi sëñ Touba gi zahir nekkatu fi loolu mësta am ci histoire mu yoon wi damay wax ne li ma xaw a niróol rek mooy 1927 bi sëñ bi ñibbisee Touba te différence de taille bi mu am mooy booba waa kër sëñ baa ngi fi Cheikh Moustapha ngi fi Cheikh Amadou Lamine Bara ngi fi Cheikh Amadou Fadel ak seen rakk yu tedd yu góor yu jigéen ak mag ngi sëñ bi defaroon mais en 2007 bi sëñ Saliou ñibbee àjjana boo xol yu bëri tiit nañ xol yu bëri ñi wax ñi waxatu fi nekk waaye xol yu bëri tiit nañ ndax vidde bi ñu yaakaaroon dana am waaye sëñ Tuubaa mbiram amul tànk dara du yàquut dara mësu sooxee waaye sëñ Muntaxaa yaa taxaw taxaw yoon boo xam ne nag kenn du ko fàtte waaw te mënoon na ko bañ a def ndax ndax koy wax ne Alaaji Baara mi ngi doon topp di laxasaayu di ko jëbbal jumaa ja ak 73 millions di di ko jëbbal njaboot gi loolu boo neexoon na nga ko bañ a def mënoon ngaa yónnee rek jëbbali ko mënoon koo bañ a gis sax yónnee ci rek ndax mën ngaa wax ne ci saahir soxlaaloo ko dara ci baatin soxlaaloo ne ma su ñu defaat ko tey waaw kon nag loolu am jàngale ko nag waaye keroog dafa yokk nag waaw ba jógee taxaw laxasaayu ak mbooloo nga àndal ak na nga toll ci yoon yi ak wax ju rëy ya nga mukk mu ne ko te transition booba am na yeneen mbokk yu daje woon feneen yoo xam ne wàccuwaay lañu am ci sëriñ ci saahir bi comme biñ ci am dañ ne yoon yu tas sax waaye barke yi dafa bari kaar bi joxee cër dañoo jàpp ne ku ne da ngay sa bopp kenn dootu yilif kenn daanaka rek ko mën a composé la ngeen ku ne toog toppatoo sa bopp waaye kilif de moom daanaka la yàlla xam doy na waaye loolu wuti naag la am lool mu jóge alaji ba dem na ba niñ ko nangulee daanaka nanguluñ ko woon ay waajuram sax am na ñoo xam daaw ñu nuyu waajuram te dañu mujj topp ci gannaawam waaw am na ñoo xam ne kër sëñ Fallou googu ba fi sëñ Fallou jóge 68 ba 2007 dugatuñ fa ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon bu defee taxawaay bu si mu taxaa taxawaay nag moo tax kër Sëñ Fallu amuñu sago ci moom amuñu sago ji doomi Sëñ Tuubaa nekkatul moom ñu bari jàpp ne yoon nga rëng-rëngi dana mel nii wala ta dem taxawaay bi dafa rafet kon loolu moo tax nag kon ku bokk ci kër gi lu mu lay defloo ak lu mu lay waxloo rek da nga cee ànd ak cawarte ànd ci ak yéene ànd ak ak ak xol bu sedd ak xel mu dal ndax day xam ne bàyyi nañu xel te ñëpp la bàyyi xel te moom damay wax ne euh, li wolof di wax maa ci raw gàttum xel la mais moom ku jaxasoo ak moom da ngay def yaa ci raw da ngay def fi mu la te tegu fa kenn loolu ak xamam la euh, xam gi ma xam Sëriñ Touba ak doon gi mu doon Sëriñ Touba ak xam gi ma xam ne ñëpp la fi nekkal loolu la lañ koy ñaanal mu yàgg fi lool rek kon daal ñuy feddli kóllëre jataay bi jataayu feddli kóllëre rek la jataayu cant la jataayu ngërëm la moom amul benn formalité amul benn euh, protocole bu ñu ciy def dañuy génn leen fekk ci àll bi aleykum salaam wa di di di di ànd ak eh, lu bari ci bokk ji di fa ñëw ak njabootuk sëriñ bi waa bisimilah ak njabootuk sëriñ bi ngeen di sonn ci ñun di ñu teral ñu ne woon bu lu mel nii bu amee rek ñu feeñal ci yéen rek la waaw waaw kon tal waaw waa koy marhaban waa koy jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf eh, waaw jërë ngeen jëf kon daal loolu la woon rek eh, muy kàddu sant rek ak ak ak jataayu sant ak jataayu ñaan ak jotaayu fedd li ko lëre ak jotaayu pare nag jekk pour dugg ci liggéeyu sëriñ bi waaw liggéeyu sëriñ bi ndax ndax Côte d'Ivoire ku ne xam ne day symbole ci yoon wi day symbole ci ci ci bi ndax lu bare bare ci immigration fa la njëkk a ñu nekk fa dem kër gi sëñ Tuubaa njëkk am ci zahir ci bitim réew dafa ne foofa la Treichville mooy kër sëñ Tuubaa gu njëkk def bitim réew gannaaw kër yi ñu am Tuubaa njaaree mag yi waaw kon loolu symbole la boo xam ne sëñ bi xam ndax na fa immigration bi tàmbalee woon ndax ñu bari ñuy nekk ci ni ma koy immigration bi foofu lañ tàmbalee ndax bu njëkk sax dañu daan wax euh, yëre yi Abidjan yi wala valise Abidjan yi wala dàll yi Abidjan yi waaw <laughs> moo doon bunt bi kon daal loolu rek euh, moo gën a waaw kay mooy yokk jataay bi sëñ Makumba ngoo kon jëwriñu Côte d'Ivoire kon bu kon bu ñu waa bisimilah ah, kay jërëjëf jërëjëf kon daal sëñ Dia yëf yaa ngi noonu rek incha allah waa kay caam caam caam caam caam caam daam njaam sa sa njaa si njaay wa mu waaw waaw waaw waaw waaw waaw jërë ngeen jëf suñ mukku moo xam fekk nga daanaka ñu tënk sax lu bari waaye gannaaw kilifa kilifa gaa ngi door a agsi rek dañ ne woon ñu tënk kàddu yu cant rek ak ñaan sëñ caam ubbi na wax ji mooy demee noonu lii dañ daan jotaay bu ñu daan def ay at dañ ko daan def di lenn ci mbokk yi nekk bitim réew di ñëw ci kër ga daara ja fee gaar bu ndaw ñu def as as as añ su ndaw naan ndox ñaanalante ñu dem ba foofu xaw a xat nag ñu indi ko fii mbokk yu bëri teew ci ne ni ma ko waxee dëkk yu bëree bëri am nañu jóge Allemagne am nañu jóge Italie am nañu jóge jóge Mali am nañu jóge Gambie am fu bëree bëri ci àdduna si ñu daan ko def buñ toogee bu jul takkusaan naanu su ndox daal di ñaan ba ba déwén ak jàmm

te comme li ëpp ci mbokk yi dañuy julli si àjjuma comme daal bu ñu jullee àjjuma daje fi bu ñu naanee as ndox def yu ndaw ko ndaa rek daal a ñaan dellu daa daa yëf nag rek ndax ma ko waxee rek dañuy ñëw ci àll bi leen fekk njabootu suñu tubaab yi fa ñëw ngeen di sonn ci ñun kon lii bu ko defee dañ ci wutu njabootu suñu tubaab yëpp waaw ndax ñëpp ko waroon def damay wax ne sëñ Mamour te bu ñu gisee sëñ Cheikh Mbaj gis nañ ko euh, sëñ Mamour mi jëwriñu diaspora murid bi bu koy def lii moom lañ koy defal lii nag dañuy fi gone yoo xam jërul di jégal mag ak def yëpp moom mën nañoo def suñu fi dong rek waaw waaw bu ko defee bu noppee rek suñu cheikh dana ko leeral ne ko dong yaa fi dajewoon dina dinañ café rek waaw dinañ café sant rek waaw waaw la loolu rek ndax moom mooy jëwriñ mooy jëwriñ diaspora bi kon buñ sëñ bi liggéeyoon dara diaspora bi moom lañ koy defal waaw ndax euh, moom la sëñ bi jëwriñ waaye ñun mooy suñu jëwriñ sëñ bi nga jëwriñam moom waaw waaw kon bu ñu sëñ bi tàmbalee liggéey fenn buñ koy def moom lañ koy defal kon bu ko defee rek euh, kaddu cant yooyu la woon rek ñu di leen sant damay wax suñ mu taxaay da nga fekk mi fàttali ci taxawaay bi mu taxawaay suñ baara ma ne moom ñëpp am ci moom yéene boo meloon ni mel ko ci yoon yi waaye mel ko si xamante baara ndax sëñ leen baara dama koy fàttali transition bi mu nekk woon moo tax 2007 bi doomi sëñ Touba nekkatul ci kaw suuf te doon lu garaaw a garaaw xol yu bari rëcc xol yu yu bari am am yëg ak wéetaay ndax jàpp ne jamono doomi sëñ Touba nekkul lu bari mën na waaye gis nga mbirum suñ tubaab mbiram amul tànk naaw tànk kanam rek lu mujj ëpp te it na ba ni ko nangule nanguluñ ko woon ay xam ne mosuñoo seet mosuñoo dugg ci kër Sëñ xam ne demoon nañ ba ne yoonu murit juróom benn weer nañ ko àppal maximum kenn ku nekk dem di sama ko nangom bopp xam ne ne yoonu tas liggéey suñu duna nekkul foofu sëriñ moom nëpp nëpp na ci liggéey bi nos na ko te ni mu war a doxee rek lay doxee waaye nag mu ak lu mën di xew nag suñu mën taxaa taxawaay bi mu taxawoon keroog ci nag mu wàcc nga wutal ñu imam mu ñetti mbir yu garaaw lool waaw mag mu ni moom kilifa ko toll ni moom am ndigal doomi sëñ Tuubaa loolu doy na waaye nee na kon loolu lañ ko amoon sëñ sëñ Saliou di sëñ Touba liggéey ba ñibbi àjjana ñu waroon ñëw yees yeesal si waat ndigal yi yeesal si waat duñ ko kon dañuy dañuy si loola benn ñaareel ba di la jébbal si caabi jumaa ji ndax noppi na mi ngi di la jox addi yu 73 milliards di di sàkk nga ñu imam te moom mooy man da imam ñu ko wër ñëpp imam lañ waaye ak mbaax ak waneew yoon waaw jàngale ak waneew yoon ak ngor la doon doxal loolu moo tax ma koy wax toujours ne ko boo gisee amuñ ci yow sir sagol loolaa tax bu ko defee te booba mën na ko bañ a gis ndax lu ñuy am ci saxaar ci bàtti lu am na ko may doomi sëriñ Bachir day na day na daraja may xalifa sëriñ Bachir day na daraja lu muy soxlaal kenn leneen bu ko neexoon toog ci këram ki ay daaraama ki taalib bi bañ ko gis sax waaye wanewu yoon ak jàngale la ko doxee te saa bu ma ko waxee mu ne ma su doon lu may defaatee ma defaat ko ma ne ko xam na xam nañ ko mbàkk xam nañ ko kon nag bu la bu ñu sagalee ne kaay leen defal ma nangam dañ ci sant bu baax a baax dañ ci sant ci waaw suñu fàll bisimilah waa kay gërëm waaw tey ñaan mu yàgg loolu rek nga fekk mi wax ne tam liggéey ba mu fu sumb itam suñu fàll bisimilah ko ko kan mooy borom kër gi Alaaji Fàllu kat bu ñëwee moom <laughs> waaw bisimilah macha allah jërëjëf Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke alhamdulilah alhamdulilah yàlla ma gumba càmm jëwriñ daare ba Côte d'Ivoire waaw alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah càmm waa kay alhamdulilah waaw jërëjëf baax na baax na Alaaji Fàllu moom mooy mooy jëwriñ ji nag moom Amérique waaw bu nga ah? mu ngoog mu ngoog mu ngoog bi njëkkee tàmbali daje daje bis bi ñoom ñoo ko tàmbali woon booba ci saal bu ndaw lañ ko daan defee ci kër ga rek ñetti ñeent lañ daan toon waaw mu dem ba law ba agsi fii nag waaw waaw te ay a ngi nii suñu fa ñu koy def danaa def ëpp na ñaar fukki at léegi <laughs> ëpp na gi mi tam xam ne ku ma jëwriñu daayira sëñ Fallu bu foofa uh, New York bi tudd daayiratul Fatah moo ko jiite foofa ak ba de ci sëñ Cheikh Mbaj moo fa nekk sëñ Mamor waaw moom mooy sëñ Mamor moom waaw boo gisee rek mooy sëñ Mamor di suñu xarit di suñu wëlër nit ku baax saa bu ñëwee fii tam lii mosu ko mosu ko wuute waaw dëkk bi xat na tàngoor waaye lu saa bu ko yëgee nekk fi da ciy ñëw waaw da nga fekk mi wax sëñ bi rek di fàttali rek yëf yi mu demee mu sëñ Mountakha boole gi waa Côte yi waaw nga xam ne Côte d'Ivoire day buntu immigration bi waaw ndax lu bari ci immigré yi fa lañ njëkk jaar waaw wala seen bokk jaar fa wala ñu romb fa kon bu ko defee bu fa bëggee tàmbali liggéey ba tey la ci Côte d'Ivoire ab soññ ci waaw te itam sëriñ Cheikh ma Guèye ma goon yi dafa liggéey bu rëy suuf su fa am jël ci lu mat cinq cinq hectares wàll capital ba jox ko addi sëriñ Touba loolu rëy na lool ni ma ko waxee ndaw ko ndaw yi bari bu doon ñoom chèque lañ koy def def ko xaalis <laughs> waaye duñ ko jox addi waaw dañu def ci compte yi waaw ndax sa suuf moom yomb na lool surtout Yamoussoukro nga xam ne capital pour euh, administrative ba donc mooy avenir réew ma waaw nga jox na defar lu plan ya lépp na kon bu ko defee rek cant yooyu daal la ne ko nekk ak leeral ko ci rek waaw ne xam naa ne bu ñu fi nekkoon di sant ak gërëm ba suba itam du du weesu lii te comme xam naa ndaw ko nday xam nañoo yàkkamti yëf yi waaw bu ko defee rek xam naa ñu jéem a yéemale kàddu yi foofu di sant bu baax rek te ñaan ku fi indi woon rek yàlla na ko yàlla faj ku fi indi woon lay rek yàlla na ko teggil te yàlla wëllëre wi ak jaxasoo gi ak ñu ñu yàgg suñu diggante ci barke borom Tuubaa barkeb Cheikh Mun Fadil mi fii nag waaw fii nga xam ne ci la bokkoon waaw mu bay lool liggéeyal Sëñ Tuubaa jumaam ji waaw waaw bu defee ci barkeem boobee rek yàlla na yàlla faj aajo rek waaw ok ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rek te jéggul tàngoor wi nag toogee bu yàgg yaa xayu yaa bi salaam ala lasi jaa bi ahsanil kalaam ala lasi wal taqabbal sal kalaam منا لا خاريس الحروف بما يفوق سن من معروف لناس من الحروف خالد ربا يا من كفى وسع الخرور والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم سلام مسلما على مساسي الخلا ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلما على مساسي الخلا ñu jégalu tuuti rek ànd ak dal bayit yooyu ñu yëkkati day bayiti ndigal jóge ci sëriñ Moodu Maamun moom Cheikh Mamadou Fadal yàlla dafa dogal nag ndigal li mënu jox wala fi dañuy wax ni booy wax na nga moytu ñetti njëppite booy wax te mu wér la ni li ngay wax du dëgg dangay ngay jéppi sa bopp ñi ngay waxal te mu wér la ni li ngay wax du dëgg dañ lay jéppi yàlla mi dara ompul jéppi la wa ma sayidna illa bi ma allim naa seede ba ca gën nga seede loo xam ah sëriñ bi Côte d'Ivoire 1975 laa fa dem yàlla dogal kàddu yi kat day kàddu yu ndigal moo tax te wax nañu ne wax day fattu ni bët di fattoo yàlla dafa dogal kàddu yi nga daane léegi li ñu ci gën a neex mooy daa xoo sëñ Maamoor Mbàkke moom Cheikh Mourtada mooy jëwriñu diaspora loolu sax baax la ak delloo nit cëram ndax an siloo naasa manaa silahum barab boo dem coow am fa dafa am ku ñu xañ palaasam yow nag ci sag baax moo waral diaspora bi bàyyi seen lépp ñëw fekk si la tey fii te yàgg koo def nga delloowaat cër boobu ca sëriñ Maam Moor moom Cheikh Mourtada ndax way juróom Cheikh Mourtada moo bayoon waar woowale kon soo defee loolu sag baax la kàddu yi ma ciy dugal nag ginnaaw bi ma yëkkatee bayiti xasida yii moo di seede yu wér laa am ci mbooloo mi fi teew 1975 laa am vi laa am euh, yoonu Côte d'Ivoire Alaaji Mangone Gueye jàng naa ca daayira ba mu daanu woo ma ca këram solal ma ñetti morso yu weextaal yu mel nii mi ngi mel ni tey ci man kon foofa am naa lu ma ci mën a seede beneen bi ci tegu mooy ñii nga tudd léegi ñuy waa États-Unis d'Amérique 86 laa am visa dem Amérique fekk fa Cheikh Mbaj mi Issa Saw Alaaji Njaay sëñ Góora Géy bu ma limee duma matal waaye li wér te mooy maa fa nekkoon ak ñoom di yëkkati xasiday Sëriñ Tuubaa yi jànkati xasiday Sénégal maa ci jëkk am visa dem États-Unis Nations Unies maa fa jëkk yëkkati xasida Sëñ Tuubaa kon li may wax wax juy tungoom seede la ñu ngi nii ñoo ko seede sa mag ju baax ja sëñ Modou Bousso Dieng moom Cheikh Mamadou Fadal moo ma jëkk may saakub xaalis su ma ko waxee dañ naan Baye Ndiass Mbadou daan naag dañu ko jox addiye ji taalibe bi dend ak moom yor mbuus mi di rokkas dollar yi di rokkas ba mu tolloo gune guy jàng dox sëñ Modou ne ko cas jox ma ma tiit ñëw ci wetam uuf ko di xaar mu ñaanal ma ñu ubbil lu mat juróom-ñaar fukki nit lañu ko jox lépp mu gees mu ni gees ni ma ko xëpp sa mag ju baax ji sëñ ba mu Mbàkke moom sëñ Mamdul Faadal nee na ma boo fi yendoon ba jant so lu ñu ko joxee yow koy jox kon wax ji du mën a gudd waaye lépp dañ koy daaneel ci sa jëm ndax fa mu la tegoon fekke nañu ko xam nañu bu wér fi la sëñ Moodu tegoon la ko waral mooy juróom-ñett a ngi nii baax na ci ñëpp waaye ci doomi soxna la gën te tasoo ci yaakaar taalibe yi ku ma ko laaj ren yàlla ma ko laajaat déwén juróom-ñett yi alaaj njaay banka sa baaraam bi ci jëkk mooy xam-xam aw fit fulla doylu jom yaru jub ak am njariñ ma firil la ko boo amee xam-xam kenn du la mën a nax doomi soxna day jàng boo amee fit kenn du la mën a xëbal adduna daa bëri yu xëble kuy def loolu xëbal nga ni pëccet ci xel ngay dëkk te ku dëkk ci xel du taxaw bay taxawal dara boo amee ful la kenn du la foyee boo doyloo kenn du la mën a jënd boo amee jëm la songu daaneel ko boo yaroo ku la gis bëgg la boo jubee kenn du la toroxal boo amee njariñ doo wéet ki gën a def ci nit ñi mooy ku ñàkk njariñ te bëgg ñu yëg ko fi may daaneel nag sama kàddu mooy dafa am doom bu ñuy wax si déem mhm. ñu bari màcc nañu ko si déem soo koy màcc loo xiif xiif deel yàbbi doom yi gis nga si déem mhm. àll ba mu ne am na yoonu fa jëm ñu koy raasi mhm. njariñ sang ceeb mu sa tax pafteen doom bu rëy lay am ci buntu kër gi lay sax te dañ koy romb nit day am njariñ kon sëñ Modou Mamoun kàddu yooyu la ñu noon dinañu ci dugal def ko avant premier ndax maa ngi ànd ak sama doom sëñ Mor Kase jàngat xasaayit defe naa bu ñu demee ba xiwlu def yëfi njóobeen bala ñoo tàggoo dina yëkkati kàddoom wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaye nag kii ma dendal moom moom da day day sama sama berma kii mooy sama lantinoor ca Côte d'Ivoire alaaji Makumba Makumba Caam yàlla dafa dogal na mu yore daayira ba lu jafe la ci yorinu aw daayira jiite ab daayira ba noppi yor jikkoy jaboot ba mu yor daayira ba ca Côte d'Ivoire booba Côte d'Ivoire tàng na fekke nañ ci lu bëree bari kon su yàlla dogalee ñu dikk fekk ko fii ma tudd waa diaspora bi waa États-Unis tudd leen su ma nee gees yem ci moom dinaa xam lu may war a mën a wax ci moom am njëriñ gi ma doon wax kii dafa am njëriñ ku am njëriñ a ngi nii du tas yaakaar day neexal jànkatu xasaayit waxtu woo nee der yëkkati xasaayit alaaji ma gumba làmb poosam jox la te jànkatu xasaayit kat bu dee jàng xasaayit jar nay neexal jar nay neexal de ndax alaaji Basiiru Géy magum ràbb la woon jàngal na Sëriñ Tuubaa xasida gu ñuy wax fusti ci njaareem mooy nettali ma dégg nee na mu jàng fusti Sëriñ Tuubaa jëllu ko ci ginnaaw seket bi jox ko ñaari dërëm ñu ko sittu naa Maryam ma yaay yonte yàlla Isaa moo la ko jox waaw kon jànkatu xasaayit des koy neexal amul jenn doomi sëñ Tuubaa joo ma sa toog ci wetam di jàng xasaayit te neexalu la waaw sëriñ Mourtala xaalis bi ma mujj a jox alaaj Mbaj mii la ko jox ni ko ana Njaase bëgg maa yeewi xaalis bi ma jëkk a jox 1982 ca ca Cameroun may jàng sindi di mu yebal alaaj Mbay yéen ko ne ko ma defal ma ko band keroog ba may yeewi jërëjëf Mbakke ba may yeewi daa ñëpp xaalis bi ba mu fees ci loxoom di ma ko jox ma tiit keroog la ma doomi sëñ Tuubaa jëkk a jox xaalis ma di ko delloo mu ni ma xasida yee tax ma jox la ko kon Mbàkke ñu ngi lay ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér wakaanaaxan bii ñu yëkkati ñu ngi la ciy ñaanal sa fan wi gudd te ànd ak wér am nga xam-xam te iñaanoo te itam li gën a am solo ci doomi soxna mooy nii ngay doxee ñàkk kiñaan am xam-xam jàng ba say kilifa ci boppam doy loola fi may teg nag sama baaraam mooy temps bu xat baaxul ci wax kat ndax jinax dañu ko laaj ñu ko ndax muus rafet na mu ne ah jotuma seetlu kanamam ndax fi ñuy daja day xat wasalaamaaleykum. <laughs> Euh, mbokku taalibe yi jëwriñu sëñ Mountakha Mbacké kàddu. mina seytaani rajiim bismillaahi yi. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi sunu sang bu tedd bii toog sunu kanam buñ ko nuyoo rek mel na ni nuyu sëñ Mountakha Mbacké Xaadimu Rasuul ak njabootu borom Tuubaa gépp ak njabootu maam Cheikh Ibrahima kàddu yi nag moom du gudd lépp ci sant lay tàmbali ci lay yem ndax bi ma ñëwee dama fee fekk ñu ma gëjoon a gis tàmbale Njaasi Njaay mii nga xam ne gëj na ma gëj na ñoo moom ab jataay dayre bi ñu daa dajee ca kër ga daana fa ñëw ah dañu soññ bu baax ci xasida yi nga xam ne moom la ko ñëpp xame ah fekk fi tamit ñi nga xam ne ñooy jëriñu diaspora bi nga xam ne fenn fu nekk kenn ku nekk yaa ngi fay taxawu liggéey bu sëriñ bi kon dana doon mbégte ci ñun ñoom ñëpp ñu dajeek ñoom fii saafo te xamoon te ñun ndax tool bee yaatu ba ñëpp mun ñoo daje ci benn barab waaye foofu waay nekk rek nga xam ne rek ñu sëñ Tuubaa moo ñu boole jaboote loolu nag sama xol sedd na ci bu baax a baax yéen ñëpp ñu ngi fas yéene amante yéene kóllëre te xam ne fu ngeen nekk rek ak lu ngeen nekk ne leen wóor ne loolee ñu ngi ca biir kon nañ gën a jàppoo ni ko sëñ bi bëggee doon benn lépp loo xam ne nekk na yitte yi nit kenn ki kenn ku nekk rek loo ci mën nga def ko ci loolu daal maa ngi koy maa ci soññ sama bopp di leen ci soññ di beral cant nag sama bokk taalib yi nga xam ne ñoo bokk nekk Côte d'Ivoire wax dëgg yàlla bi ñu yàlla boole léegi mi ngi bëgg a yàgg waaye li ma wér te moo di ñu bëgg sëñ Tuubaa lañu ñoo xam ne sëñ Tuubaa jëral na leen lu nekk loolu moom ba ñu ànd ñoom ba léegi loolu ñu gis ci ñoom kon nag ñu ngi doolee sàkku sëñ bi nga doole ñoo ñaan la ba ci réew moomee ñu bàyyi ko sunu borom gën faa jàpp ne ay xéewal ñu jël ci xéewal yi di ko indi fii a ah, di dem ak dikk ah, di ci taxawu liggéey sëñ bi di ci taxawu njaboot gi ci barke sëñ Fallou jël ngeen jëf ñu ngi sant ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp yal na suñu borom mboolu jéggal yal nañ ko teew ay déwéni déwén ci barke sëñ Fallou jël ngeen jëf kon baax na kon ñu ñu sant ñu ngi sant bu baax suñu Baye Magoumba Thiam jëwriñu Cheikh Mountakha Mbacké fële ci d'Ivoire kon ñu jox euh, kàddu gi suñu Baye Baye Issa Sow ca Touba Amérique bisimilah. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu tam mën ko wér yàlla dolli ko ngërëmal sëriñ Touba waaye ñu ngi koy jaarale ci rakkam ju tedd ju baax ji sëriñ Mouhamadou Mamoun Mbacké mi nga xam ne ku ko xam rek dootoo ko doyal danga koy bëgg ndax li sëñ si wax ci moom muy nit koo xam ne ni mu def boppam rek la def taalibe yi li taalibe yi waroon di def ci moom moom lay def ci taalibe yi kenn ku nekk war na koy ñaanal yàgg fi ak wér ak ngërëmal sëñ Tuubaa euh, yaakaar naa ne ku gis àndam ak Cheikh Mamadou Moustapha Fadilu yàgg gam yàggoon ak rafet gam rafetoon rek moo lay wax kim doon ndax Cheikh Mamadou Moustapha Fadilu kum tànn ànd ak yow lu yàgg lu mel noonu rek am na lu yàlla def ci yow loolu nag mel na ni sëñ Ndiasse définir na ko sànq sëñ Ndiasse yàlla na yàlla fay la bi ma ñëwee nee naa la lii moo ma manqué woon bu yàgg ba tey environnement boo xam ne suñ daje ak yow ndax lii dafa baax ci ay doomu aadama daf ñuy delloo si andil ñu lu bëree bëri wu dindi stress defal ñu tawféex ju bëree bëri yàlla nga fi yàgg te wér yaa ak sunu mbokk mii nga xam ne euh, sëñ moor Kase di ku baax ngeen ànd neexum njàng bëgg Serigne Touba bëgg dongo yi di liggéeyal Serigne bi yàlla yàlla nangu leen nangu nangul ñu barkeb xaside yi kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ci turu Serigne Fallou Mbacke Mara mi nga xam ne mooy sunu kilifa foofu fii ñu toog nee waaye ci turu sëriñ Cheikh Mbaj alhaaji Gora Gueye mi nga xam ne mooy jawrinu daayira Serigne Fadilu daayira Fata waaye nag ci turu kilifaam Serigne Massamba Diop mi nga xam ne moo liggéey ba jóge fa ñëw di liggéey fii bàyyi ko muy liggéey ànd ak donga ya waaye ci ki nga xam ne moom it yoroon na liggéey bi tam rafet muy Serigne Fallou Ndiaye mi ma jàkkaar lool ak mbooleem ñi nga xam ne nag ñoo fi nekkal Serigne bi waaye di nuyu bu baax Serigne Modou Habib Thiam Serigne Massaer euh, Guèye Ngumbu Guèye ak ñi ngeen àndal ñi ngi nuyu ñu jóge New York yëpp di leen ñaanal di la wax ne sëriñ bi euh, sëriñ Mouhamadou gay mi ngi wax ne day yaramam daw na bés bii mi ngi ko daan fekke tey nag nekku fi waaye xolam ak xelam léppam mi ngi fi nee na sëriñ bi day diggam ak yow diggam ak sëriñ Fallou mi ngi ko seedeel ñëpp mi ngi ñaan ñuy naanal ko ci ba li nga xam ne rek yéene na ko mu def ko ci te defe naa ne lim ci yéene ñëpp xam nañ ko ni mel ci Serigne Fallou mel ko ci njaboot ak Serigne Fallou defe naa ne loolu doonatul lu ñuy laajte làmb daj la kon nag lam ci yéene yàlla na ko àggale liñ ci yéene yàlla nañ ko àggale euh, sëriñ bi yàlla nga fi yàgg yàlla nga wér waaye loolu nga wax ne Serigne Mountakha moo la ko def sa diggante ak bokk yu baax yi di waa Côte d'Ivoire nga xam ne ku ci nekk ba ngay gone di jàng xamagoog taalibe nga dégg seeni jëf. ak seenu mbaax ak seenu njàmbaar ak seen bëgg Serigne Touba ak liggéeyal ko te ba tey jii muy gën di dem kon day yéen mun euh, Mountakha loolu mu leen boole ak yéen Serigne taxaa dafa xam rek ne euh, lii mu yore moom moom ñoo ko bokk rek na muy liggéeyee noonu la war a liggéeyee te lim koy liggéeyloo mën na ko kuy liggéey nag te bëgg la ngay liggéey am résultat da ngay jox ko mën a liggéey te Serigne bii de ku xam li ci moom ci njàngum diine waaye ci njàngum àddina ñi ci wanee ko jaay lu ci amul mu raw leen fopp te boo gisee doo ko xam ci moom ku ko jox lu ñuy liggéey ci sëñ Touba ci réew mi ci lu muti doon rek yàqoo ko jox nga ko ko moom sëriñ bi yàlla na jox la ay ndam yàlla na jox yeneen liggéey yàlla nga liggéeyal Serigne Touba liggéey bu ñëpp teg seen bët yàlla na Serigne Touba liggéeyloo ci liggéey yu mag yi te ñu ànd ko ci barke Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi lay ñaanal mbooleem waa États-Unis daal ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ñi ngi sant waa Abidjan ñi ngi sant mbooleem fu diaspora nekk ñi ngi leen di tàllal loxo di leen xam ne ñoo bokk luñ bëgg ñoo bokk lu ñuy jëf muy Serigne bi liggéey Serigne bi ndax rawante bi mi ngi ci liggéeyal Serigne bi ku raw dootoo ko seen Serigne bi li nga def rëy na ci ñun lool ndax li ngay def li ngay daj ci lii te nga xam ne wax dëgg yàlla ku nekk xam na ne ñoo la waroon woo di la defal nii nga woo ñu di ñu defal jëf jii nga ñuy defal waaye xam ne rek liggéeyal sëriñ Touba da nga koy liggéeyal ci taalibe yi sëriñ bi moo wax ne taalibe yi ñoom laa am yow nag loolu xam nga ko yaa ngi jëf ci ñoom yaa ngi leen di seet yaa ngi leen di ñaanal yaa ngi leen di bàyyi xel bu ñëwee nga woo leen defal leen teraanga jure ji yal na yàlla yokk sa kattan yokk sa wér yokk say xéewal ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul barke Serigne Fadilou barke Cheikh Abdou Khadir maa ngi jégalu di siyaar ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh